yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina bu ñu jóg di way sang fidèle internaute ba tey ñoo ngi kontaan ah, gunge gi mi ngeen ñu gunge ba tey ci màggal gi di leen fàttali rek ñoo ngi fi nga xamante ni moom moo di kër Serigne Askia ah fa la ñuy nar a màggalee tey jàkkaarloo ak soxnaam su yanj si nga xamante ni yaakaar naa kenn dootu ko présenté muy la grande royale de Sabodala moom moom ah chaque màggal rek sénégalais yi dañ koy xaar ci li nga xamante ni moom moo di sañse ci li nga xamante ni moom moo di takkaay coiffure ak lépp loo xamante ni rek ay baax-baax la ci biir màggal gi dañ ko ciy xaar waaye rek bala ñuy dugg ci waxtaan bi dañ koy tàllal suñ micro bàyyi ko mun yokk internautes yi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan ah, ngi lay nuyu di la ziar di la dalal bu baax a baax. maa ngi leen di fay bu baax a baax di ziar ñëpp di dalal ñëpp jàmm. comme ni nga ko baaxee di def rek chaque màggal fi ngay fël maanaam ci sañse yi ñu ndëkk ñëw ci sañse yi ak li nga xamante ni moom moo di takkaay yi nga xamante ni day def bës bu baax a baax yaakaar naa ci réseaux sociaux yi naka la demee ak yow. waa di sant rek man ku ma xam xam ma si bëgg takkaay bëgg solo parce que damay bëgg def loo xam ne day bëggal sama jëkkër li sama jëkkër bëgg rek laay def yére sax su may jënd moom mooy tànn man bii su may jënd sax moom mooy tànn dama kon ba mu ne rafet na rek ma door a jënd ci foofu laa bëgg a ñëw yow dooleel gi nga xamante ni dala koy dooleel à chaque fois ba boo génnee da ngay gën sa complicité ak moom waaw moom du sama jëkkër sama xarit la sama mag la dañu mel ni ñoo bokk ndey ak baay sama complice sama xarit la lu ma bëgg bëgg na ko lu ma bëggul bëgg ko et puis dafa bëgg lu ma neex ba lu ma bëgg rek dafa ma ci fekk si macha allah ñu ñëw ci màggal gi bernde yi nga xamante ni da nga koy faral di def sànq rek dégg naa la ngay wax ay gëléem ak ay xarak yooyu noonu euh, naka la demee organisation bi waaw màggal ñun dañuy bernde ñun ay murid lañu murid ko xam-xam ko ci bernde ñun dañuy bernde bégal doomu aadama yi ñun màggal luñ ci deful dañ ko amul luñ am dañ ko ci def te bu màggal jeexee ñi commencé waat di préparer ñun màggalu déwén. waaye. bi mooy ñaareelu sol bi ñaata nga dencal sénégalais yi. ah tey du sol lu bëri tey 15 rek laay sol du ma sol lu bari <laughs> ak lan dégg naa waajal nga tamit gramme bu or. gramme boo xam nee lépp or la. dañuy wax rek. Hmm? dañuy wax rek. est-ce ñi tamit. non non dañu lu yem rek laay def. lu yem sa dernier kàddu. <laughs> di sant rek di kontaan si ñëw bi ngeen fi ñëw defal ma surprise kontaan naa ci. waaw kontaan naa ngi sant ñëpp di. kon ñun ak yow ñun ak ba màggal gi jeex. incha nee na 15 lay sol ah internet yi ñuy seetaan nee lay sol gramme bu or sax am na ci. dañuy wax rek. Ah, dañuy wax rek <laughs> yooyu yëpp amu ci. daa ñuy jeexal duñ la bàyyi mu ko te sànniwoo kaddu ci ki nga xamante ni moom moo di le président de la république muy Macky Sall euh, diggante bi nga xamante ni am na ko ak sa borom kër kóllëre bi nga xamante ni ñoom ñaar euh, sax na fii nii ci biir Sénégal ñu bàyyi la rek nga sànni ci ñett ñetti kaddu. waaw man président Macky Sall soo ma ci laajee dama ciy kontaan mooy suñu président de la république réew mi bëgg ko. mu def ci réew mi nag loo xam ne benn président mosu ko fi def waaye Macky Sall Euh, li man. non da nga ko bëgg ba fu ñu ko tuddee. waa dama ko bëgg ba du ma mën a wax si moom. <laughs> bëgg jabaram muy nit ku baax. man mhm. lu baax mën a dimbale. yan relation nga am ak soxna Marème Faye Sall. man umpaañam la mu dima defal nga nekk nit ku baax. umpaañ ci naka. parce que sama jëkkër nijaayam la. Ah. su sama jëkkër nekk nijaayam moom sama umpaañam laay nekk. mu nekk nit ku baax jàppale jëkkëram. ma naw ko loolu fonk ko. Marème Faye Sall référence la. waaw référence la comme ni nga nekkee référence. waaw moom de référence la. da <laughs> lay jaajëfal. merci. safante rootina sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safante rootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yangooti na bu ñi jóg di way sang